mbokk internautes yi dal leen nag jàmm passeport diplomatique yi nga xamante ni nag euh, jamono ji nee ñu nag ci état bu Sénégal am na ci nag lu doy waar loo xamante ni bés bu feeñee nag loxo dina dar gémmiñ mooy trafic de passeport diplomatique présumé ay nag grosse pointure yu république bi dañ leen daal di nag cité euh, si mbir moom le journal enquête moo daal di enquête ci mbir mi neen nag daanaka lii honte la honte nee na bu fekkente ne am xamante ni nag ah, daanaka mi ngi yàq ah, deru réputation bu Sénégal mooy nag bu passeport diplomatique bi nga xamante ni ah, ça fait plusieurs années nee nañu nag ci la business boobu di dox ci diggante palais de la république bu ca présidence ak nag fële nga xamante ni muy ca ministère des affaires étrangères jaarale ko itam ca nag assemblée nationale ba ca nag aéroport lépp nag ab surprise boo xam ne bu pourri la am nag ci ñoo xamante autorité yu mag lañu ci ci état bi ñu ci daal di nag bokk ah, te ñoom ñi ñëpp daanaka nag lekk nañu ci ay millions laata réseau bi ñu koy démantelé am ñu ci ndaw a ah, jamono ji ne ñu nag ay ah, nit yoo xam ne ñu kawe lañ la ñu daal di cité sans que nag daanaka ay nag action yi ñu jot a mëne boobaak léegi sax daanaka nag amul benn njariñ par rapport ak lii nga xam ne moom mooy faute bi ñu leen di toppee bu ñu sukkandikoo ci publication bu enquête du coup nee na enquête enquête bi ñu def nag ci trafic de euh, passeport diplomatique daanaka ñu ngi koy poursuivre mais nag bu ñu sukkandikoo ci ay information yi nga xamante ni nag euh, dañu ko daal di nag euh, rapporté li nga xamante ni moom mooy ñin ci daal di nag cité daanaka nag ñoom ñi dañ leen cité nii pour cité leen rek waaye nag ba tey jii nag doxaluñu nag yoon wala bokk ñu daal ci dëggal seen bopp lépp ngir bañ a ébranler li nga xam ne mooy pouvoir en place bi mu nekk encore une euh, zone d'ombre boo xamante ni nag dafay conforter la thèse bi ñuy wax chaque jour moom mooy nag la justice fait euh, du nag deux poids deux mesures muy nag justice à deux vitesses bi lee kumba am ndey kumba amul ndey justice bu fi nekkal baadoola ak justice boo xamante ni nekkalu fi nag ñi nga xam ñoo nekkee nag ci pouvoir bi la ñu bëgg daal di nag euh, prouver ci nag coowal passeport diplomatique gi lee moo tax nag bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ni nag euh, moom mooy nag ñu faree ci journal l'enquête xam leen ni nag ni euh, jamono ji enquête baa ngi woy waaye nag ñoom euh, bu fekkonte ne nag daanaka ni ñu médiatiser woon nag arrestation kilifa beek mbirum nag ñeneen nag ñeneen daanaka defuñu ko ci bii ndax ñañu jàpp bi présidence de la république di palais ba nag te ñu ne leen tudd ci bileen coowal passeport diplomatique daanaka ñoom ñi sax ngir sax ñoom ñi ñu daal di nag wax identité yi sax euh, presse bi mën koo relater normalement ça c'est tout un problème dañu nekk di nëpp nëppal ak nag di di ko jéem a gérer à l'amiable euh, ba ci président de la république sax daanaka sàkku na ci ñu leeral mbir yi waaye nag médias yi sax amuñu droit ci PV d'enquête yi nga xamante ni nag ñu ngi koy def euh, tey nag bu doon feneen wala ñeneen boobu ba tey jii nag daanaka siiw na comme nag ab poudre mu nekk mbir moo xamante ni doy na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 maa ngi foofu yéen célibataire yi tey ngeen dee marié am ngeen lu ma leen xamal xam ngeen li ma leen wax eh DKR 221 abonné